maaleykum mbokk internet yi seetaan euh, fii ci Tivaouane en direct Cheikh Aziz Ndiaye ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñu topp euh, ci kër gi nag bëri na ay autorité yu fi ñëw mais autorité biy ñëw dafa bokk ci autorité yi nga xamante ni buñ leen di dalal tapis rouge lañ leen di lalal muy per Père Diaw borom waay waaye aussi di kilifa ci Aziz ñu fekk ko fii nga xamante ni mooy salon d'honneur bi ñu nuyoo ko ba pare bàyyi ko mu nuyoo mbokk internet yi ñoo dugg ci li nga xamante ni moom mooy laaj ak tontu yi papa ñu ngi lay ziar di la jox sama waa avant tout maa ngi leen di nuyu di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sant suma ñaari waajur di wax rek ni wax intéressé wu mais fii ma ñëw kuy seetaan vidéo bi à travers le monde wala nga nekk fii ci réew mi dangay xam ni man taalibe Maodo laa di taalibe Serigne Babacar Sy ñëw ci suma kër rakk muy Abdou Aziz Ndiaye kon bis bu mel ni ak li muy def ci Tiwaawan ak taxawaayam ci Tiwaawan loolu mooy sumay tànk di leen déglu ci biir question yi sa diggante ak Aziz yaa ngi koy juñu sànq euh, yéen a bokkoon géejawaay nga am lu bari loo xam def nga ko ci ñoom ci moom lan nga ñu mën a wax sa diggante ak Aziz. waaw Aziz suma rakk la ku ne am na droit ne Aziz suma rakk la waaye ñu bare naan Aziz suma la suñ ko waxee dañuy xam ñan ñooy ay magi Aziz Aziz suma rakk la mu leer ñi seetaan ñëpp. képp kuy seetaan vidéo bi bu ma nee Aziz suma rakk la rek dëgg la ndax sama ànd moom léegi mu dem 30 ans mu dem 30 walla mu dem 25 ans ndax bi ñuy ànd ñoom amuñu soxna te seen doom yi léegi ay mag lañ ma yar ko ak ñeneen muy suma rakk at ñu di ko seereel lu baax ñi ko koy seereel man maa ci gën a yàlla. ku dul ndeyam doo baayam doo famille Aly Ndiaye man bokk naa ci magam joo xam ni bu may wax ñëpp dañuy xam ni kii di wax rek moo war a wax as subaraka la ñu koy ñaanal comme li ku ñëpp di ñaanal Aziz bi gàmmu gi démarré léegi dégg na lu de Aziz xam nga bu la sa ndey gërëme sa baay gërëm la sa sëriñ gërëm la taalibi seex yi gërëm la murid yi gërëm la say xarit gërëm la say àndandoo gërëm la loolu ku ne bëgg na ko am mais dafa am ñu ko yàlla jagleel ndax Aziz li ma gën a neex ci jikkoom dafa reconnaissant nit ñëpp la yàlla teral nit ñi ñoo xam ñoo xeeb seen teraanga mais yàlla bàyyiwul kenn teraanga yii nu am sunuy maam bi ñuy tol ni ñun amuñu teraanga ji te ñoonu dàqoon jaamu yàlla ñoonu gënoon gëm Maodo kon ñun lii nu yàlla defal adduna bi ñëpp am teraanga nit ñi ñoo xeb seen teraanga Aziz nag bi nuy ànd dara du dara kër gi bi mu koy jënd fekkewuma ko mais bi mu ko jëndee ba pare ñu di ko fondation ba fii mu egsi fekkewuma peinture bi de fekkewuma dekoor yi mais lépp lu am ci kër gi ànd naa ko Aziz ma koy ñaanal nag comme li ko ñëpp di ñaanal te xam naa li ko ñëpp di ñaanal am na ñaan yu ko ci neex waaye man sama ñaan dana ko neex mooy bi ñuy ànd lii am amul manul dara man manuma dara waaye bi ma xamee ni dina man nag yi mu jëkk jëndal baayam boobu amul kër nag yi bu ñu ko jaaralee lu dul ci montagne day damm nag wi Aziz jëkk jëndal baayam dañuy mën a jaarale ci nag wi ci benn montagne arrière oto bi pour mu dugg ci oto bi sans loolu nag wi day dem te bi ma xamee nii borom jom la borom jàmbaar dafa ma wax ni ma grand ma ne ko naam mun ma dama bëgg di togg di jox taalib yi ci biir géejaway ñu bàyyi yalwaan ma ne ko loolu mënoo ko yonti yàlla Souleymane barale woon na ba ne sunu borom may ma mu dundal bindee fii sunu borom ñu ko mënoo ko. mu di ko ñaan ba ci ab añ mu toog ko sept bi bisu invitation ba benn jën moo génn ci géej gi lekk li Souleymane toggoon ci sept mois keroog amul benn mbindeef bu añ waaye ca booba laa xam ni kii ci dundam décidé na teral nit ñi xam man ban problème laa am laajoo ma ko de mooy lii mu démarré woon bu gàmmu jotee mu jën jënd nag yi indi ko Tiwaawan am ñu ni du dem waaye lii dem asis jamalu ko yàllaa koy doxal di ko doxal ci daraja yonent bi liir waa suma rakku suma rakku bopp lii muy def ma ngi dox ci màggaayu yàlla ci daraja yonent bi tax ku bind yonent bi moo tax at mu nekk bu indee nag yi ñu ni bu déwénee du ko def waaye Maodo ëpp na ay nag wax ji nag wax naa ko des années waaye ñu ngi ñaanal Aziz wér ndax lu mu mën a am te wérul non dégguma ko wax loolu man waa loolu dama ko déggul bu ma ko déggoon danaa ko tontu Aziz fii mu si kenn ku nekk bëgg na fa yegsi waaye yàlla moo ko jagleel te mu am xol bi am expérience bi et puis du changé and ñun ñi mu doon àndal bi mu amul dara ma ngi ñu téye ba tey man tudde naa ko doom moo yóbbu ci yenent bi li mu man yëpp defal na ma ko te li mu man li ma ci gën a neex mooy cër bi mu ma jox bu ma duggee ci biir kër gi ca bunt ba ca gardien ya ba bi ma yéeg ku ma romb rek xam na ni magu Aziz ngi nii man magam la man année bu ne heure bii ma daan ñëw rek lay ñëw moom danay bëgg may dem Jolof di ànd ci nag yi waaye damay nekk ci ay xat-xat waaye asis bu ko Tiwaawan ñaanaloon rek ñu ne li mu doon Tijaan la mais Aziz Sénégal yëpp ko ñaanal yàlla nag ñu ngi ñaan mu dollil ñu ko jàmm dollil ñu ko wërsëg te mayal ñu ko ak muñ xam ni moom mu ngi gis nit ku ne waaye li bruit bi di bare bare moom xàmme nanu bàyyi nanu xel maa ngi ñaanal sunu aaw ba maam Binta Dem yal na yàlla jéggal ko maa ngi ñaanal Baye Allé di ñaanal suñuy waajur du ñaanal suma xarit bi ma àndal muy Souleymane Fall xam ne man maa ko yar man ñi ma yar ñëpp ñi ma yar ñëpp dañu am jom progressé kon ci gàttal Abdou Aziz moom ma tax di wax sa Abdou Aziz c'est pas temps aw ma jot di wax ndax man sëtu yore jaw la aw ma jotu keneen ñëpp sama njaboot lañu mais dafa xam fauteuil bi ma war a toog mu teg ma fa man buur la sama sama interview yàgg ngeen wax ma naan man sëtu Yoro Jaw la loolu day déranger Aziz ku mel ni moom yombul Aziz garmi la li ko yàlla jox kum ko joxoon nga soppi ko mais Aziz di suppiku gis nga liy xew ci kër gi du Aziz de am na ñu koy jéem a incarné mais gàmmu Tiwaawan la Aziz woote mënul na jël nag yi rey ko ci biir këram mais Aziz programme am muy bëgg na jamono ngi ñëw fu ma nekk wala ab tànt ci Tiwaawan Aziz da dafa dugal nag man maa war a wax ci Aziz man mii ku santul Njaay bokkoog moom ndey ak baay bokkoog moom baay booy wax ci moom deuxième nga man bi fi dara nekkul laa fi ne woon bisu tey bii duma ko changé pour beneen bis ma fi def ay trois jours quatre non fii ma toog dama fiy toog ban ni mi gàmm gi commencé na te bu ma demee ca gàmm gu bu quatre heures du matin jotee wala cinq heures ma génn wuti ndakaaru ga ma nekkoon ñun nii nu mel nii rek lañu war a mel Aziz c'est mon frère suma frère de sang la bégg na lu ne te teeru terewul mu téye ma boo yóbboo nit ci yonent bi nag finaalu naa man dama finaalu dama bëgg ngeen bañ ma yéegal parce que tey nag bés bu bés bu am importance la muy bésu gàmmu déjà Aziz fi mu woote ñëpp ñëw nañ comme ni nga ko waxee dina gis ku nekk dina gis doomu aadama bu nekk mais ma ngi ràññee ràññeel boobu lan moo ko may lan moo ko man ban expérience de vie la mën a am ba mën a absorber loolu ñi nga xamante ni war na leen a téye ñi nga xamante ni war mën a am leneen mu war a doxal ak ñoom it mu doxal ak ñoom lan moo ko may xam nga ñun ñëpp am nañu yaay man yaay ju baax laa am baay ju baax mais Aziz yaayam moo ko tàggewul ak kenn as bi ma yóbbu mag yaayam la waxtaanal ak papam fekkewu ma ko xalaatuma ko su ko yaay ni woon du am du ma dem Aziz yaayam du ko tàggaleeg nit duñu ko moytul nit duñu ko dawal nit Aziz suñu borom moo koy leeralal yoonam Aziz xamul lu bon Aziz du mere nit Aziz boo ko xamee sax mu nga mere ko dana lijjanti ba seen diggante jeex maanaam bëggul kenn mer fi mu bi mu ñëwee sànq moo yor caméra portable bi di filmer ñaata jour la def Tiwaawan une semaine kanam gi mu fi duggee woon moom la yor ba tey maa ngi gërëm nag samay soxna di gërëm suma doom muy sama taaw li ngeen di dagg lépp ay daggkat ngeen nag mais nday Soxna Jaw kooku mooy suma taaw kooku réew mi xàmmee nañ ko mooy suma taaw bu ma taaw gàmm gu nekk événement bu jot day xotti tabaski xotti korité xottil ma gàmm yëre gàmm bi mu ko xottee dama koo demee bur du Serigne Cissé bu Serigne Babacar bleu boobu dafa xottiwaat leneen solol ma plein jox ma oto bu bees jox ma xaalis bu bare yore jëw booli mbooj ngërëm lii ma koy ngërëm à travers le monde ñëpp xam nañ ni sama doom jii may gërëm il mérite maa ngi gërëm sama doom yëpp ñu nekk États-Unis ñu nekk Allemagne ñu nekk ci yeneen réew yi bëgguma catu samay doom man dama. ñëpp xam nañ ne géejawaay ñëpp a ko sopp mu bëri lool ay nit yoo xam ne dañuy dégg ay kàddoom wala ay sax mun naa ne ay mbër ndax Aziz loolu noonu la comprendre ba mu waral ne saa su ne bu per jaw waxee mu déglu ko attentivement di ko jëfee ci ay kàddoom bëgguma ñu laaj ma daray làmb tey yonent bi moo xewle te man sama philosophie mooy dem naa ci yonent bi man dama leen di ñaanal da nekk ay ndaw di calculer est-ce que seen mbir dina baax bu leen doxee noonu yàlla wërsëg la njëkk bind nit li ngeen war a am ak fi ngeen war a jaar yàlla noppi na ko mais ndaw du njàkk jaar-jaar dama doon gërëm rek su may soxna ngeen dugal ma question maa ngi gërëm sumay may soxna du lim sumay soxna di leen catu waaye maa ngi gërëm sumay soxna waaye di gërëm sama soxna si nga xam ni mooy suma aawa muy Debbo Seck di gërëm suma ñaareel muy Adama Fall ki jur doom ji may gërëm Debbo jur na doom ju may gërëm muy Medoune Diaw di suma taaw di gërëm suma doom yëpp di gërëm nday soxna di gërëm sama doom yëpp xam ne taxawu nañ ma di wax ni doom ju ci am sa baay am sa yaay nañ ko taxawu comme ni nday soxna jaw ak Medoune jaw ak sama doom yi di taxawu seen baay ñoom ñoo tax kenn yabu ma li nit di nam mooy kër goo dugg li nit di nam mooy oto li nit di mooy dem ci yonent bi ñetti yooyu yëpp dal na maa ngi ci kër maa ngi dem ci yonent bi dem naa ci yonent bi nammuma couleur jasneer nammuma xaalis ci poos maa ngi gërëm frère u Assis yëpp ci jiital ma sata di cël Baye Ndiaye di suma rakk di suma xarit di teg njaag teg famille Aziz yëpp di gërëm doomu Aziz yi di gërëm jabaru Aziz yi te wax ni asis na ko réew mi ñaanal lii muy def yombul as li ko yàlla jox am na ñu mu ko doon jox ñooy raw golo wax ji bu leen ko dagg de Aziz moo yaru moo civilisé moo nite mooy nit ku baax man nag di fet que wax naa ci Aziz te yaakaar naa ni dinañu ko seetaan kon maa ngi gërëm suma soxna bi nekk Italie bi ko wax Aji nga xam ne tey fa mu nekk wéet na Aziz ñu ngi lay ñu ngi wax aji gàmmu jàmm di ñaanal sumay goro di ñaanal sumay xarit di ñaanal sumay dëkkandoo di wax ni am naa fierté ci yéen maa ngi ñaan ci doole Serigne Babacar Sy mi nga xam ne aw ma ku dul moom ak Maodo balaa déwén yàlla na yàlla soppi seen lépp jërëjëf jërëjëf